alaaji wolof nee na àddina weeru koor la fawwo jant so nga doog a mën a wëññi bés français ne la vie est comme le mois de ramadan tant que le soleil ne s'est pas couché on ne doit pas compter les jours àddina si feeg yaa ngi fi bul foog ni am na lenn lu la jomb ci ay teraanga waaye nag bépp safaan buy dal nit tiital de xam ne mën na laa bañ a moy ndax nit nga doxoo malaaka nit ñi la yëf yi di daal kon nag ñaanalal ñépp am jàmm ndax nga mën a am jàmm ndax nit nga waaye nag boo farloo dara doxut sa digganteeg teraanga lu muy liggéey ak bañu yàq bayil xel du ndigal lu yéeme la